yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi nga xam ne yéen a ñuy suivre ci seen télévision Touba Vision ñu am mbégte ñëwaat fii ci kokki Kër Ngura comme ni ñu ko defoon ci année yi jàll yëpp ñëpp di rafetlu liggéey boobu noonu ren ji ñu amaat mbégte ñëwaat lool fas yéene ànd ak télévision boobu ñu xam ne mooy Touba Vision Euh, war a ñëwaat fii ci ziar annuel bi nga xam ne maanaam association pour la sauvegarde de l'éducation Cheikh Makhtar Ndoumbé moo koy amal euh, ni muy ci année bi chaque année ren nag ñu ñëwaat am mbégte ñëwaat fii ci waa waañ yi fas yéene xool waañ bi naka la ñuy doxalee ak liggéey bi nga xam ne maanaam moom moo fi am saa su ne euh, lu daal dugg ci biir waañ ñu xool mbokk yi nga xam ñoo fi nekk ak ni ñuy doxalee liggéey bi kon foofu ci biir ñu am mbégte ànd ak ki nga xam ne maanaam moom mooy jëwrinu waañ bi ñu koy wax Baye Dame Fam nga xam ne mën nañ trois jours moom dafiy nekk ak pandant jour bi ak après jour bi nga xam maanaam lépp loo xam ne ni moo war a xew ci liggéey bi rek ci loxoom lay jaar kon suñ bayram ñu ñëwaat am mbégte war a daje war a yow ci bis bii nii daaw àndoon nañ ko àndaat nañ ko ren di wax alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla fekke war koy at yu bare bare bëri li ñu njëkk a laaj rek mooy maanaam liggéey bi par rapport ak ni nga xam ne maanaam ci nga doon doxee daaw ak ren am na changement ak yokkute gi nga xam ne maanaam moom nga ci seetlu ci waaw ah, jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah eh, ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaar leen bu baax ci bis bi nga xam ne si ni mooy bisu maam Matar Ndumbe bi nga xam ne si ni ku nekk war na ci yëngu saa su nekk ngir yàlla taas la ci barkeem muy koo xam ne si ni dafa doon yëngu ci diine te boolewu ko dara lu dul diine rek kooku lu ko waaye defal ne danga ci am taseeg pay sunu borom kon ñu ngi leen ci siyaare bu baax eh, di ñaan yàlla yàlla dajale ñu ngërëmam eh, bis bi nag comme ni ma rek lu ciy def lu ci waay def lu lu mu xeeb la. lu mu xeeb la lool moo tax yëngu guñ ci mën a yëngu ak lu ci mën a metti duñ ko yëg duñ ko yëg euh, bis bi nag euh, ni muy ni mu doon doxee daaw ak ni mu doon doxee ren liñ ci xaalis ni mooy wute bi mooy yokkute gi rek yokkute gi nga xaalis ni ñu ngi ko ciy ñaan an mu jot tam mi ngi koy def. ñu ngi ko def at mu jot prévoir li nga xam ne si moom lañu ñu bu ci déwén saa day gën a bari mu wane ne kon bis bi euh, mi ngi gën di jëm kanam kon déjà li ñu def barke mi ngi ci wàcc noonu lañ koy gisee. ndax euh, gis ngeen waañ wi nii li nga xam ne si moom an mu jot liñ ciy def euh, bu bu delsee ci déwén si. day gën a yokk day gën a day gën a bari noonu lay demee ci saa su nekk. ci biir lool li laaj rek mooy maanaam par rapport ak daaw. liggéey bi nga xam ne waa ñu métti na naaju tàng na ndax condition yi nga xam ne baax na wala am na lu ci war nekk baax na euh, waaye ni ko walla di waxee loo xam si nii da nga koy yàgg di def an mu jot danga koy gën a jekku waaw moo tax waañu ni mu daan méttee bu njëkk euh, métteetu ko lool euh, ndax li tax métteetu ko benn xale yëpp dañoo jóg taxaw. ci liggéey bi amuñu benn taxawaal buñ ci def euh, wala benn tappale ñoom ñëpp taxaw euh, maam Mamadou Kane mi jiite leen euh, ñu taxaw ñoom ñëpp di góorgóorlu moo tax du diis ci kenn du diis ci kenn te te te gën nañ koo gën nañ ko maîtriser gën nañ koo xa gën nañ koo xam comme ni nga xam ne si noonu la daan demee noonu la demee looloo tax métit yi du du demee noonu wax dëgg yàlla te dañ ne boo dee def loo xam ne si nii dafa doy dafa doy du la sonal te te fii li ñu fi def lépp dafa doy amul lu ñu ciy demeer de naan xoolal noo ko defee wala yooyu amu ci li ñu ci def dafa doy moo tax euh, du sonal kenn du sonal kenn wax dëgg yàlla affaire bi daal jàppandi na euh, taw feexe na daal te euh, ñi ngi ciy gisiti yokkute comme ni ma ko waxee woon wax dëgg yàlla am nañ ci mbégte daal bu baax a baax yàlla nañ ci dajee ngërëmal suñu borom daal lañ ciy sàkku bi jaay Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam jërëgeen أبدا يا مالك الملك يا من جل أن خاد ارحم جميع الرد